la témoin nee na Khalifa Ababacar Sall dina dem ci dialogue bi waaye tamit daat nay leeral lan moo tax muy dem ci dialogue bi moom Khalifa daat nay wax ne bu dee ma ngi dem ci dialogue bi li ko waral bokk na ci ñu amal élection yoo xam ne yu leer lay doon ñi nga xam ne ñoo ci war a bokk daal ciy bokk ñi nga xam ne ay détenu politique lañ ñu daal leen di libéré te jamono ji ñi nga xam ne ñoo ngi leen di teg loxo ñu daal di koy bàyyi journal bi di réew mi quotidien nee na am na ñenn ñoo xam ne ba léegi waxaguñ lu leer mooy ñi nga ne ñooy waa PDS ñoom nag nee nañu amoon ba léegi ñi nga xam ne ñooy waa na ñu dem ci dialogue boobee yéen a kaay gi de la témoin nee na en tout cas li am ba desale ñaari dialogue moo am ndax Macky Sall tey ci ci digg bëccëg gi woote na ab dialogue ca palais ba ñi nga xam ne ñooy plateforme F24 nekk ci ko jege ñoom tim tey ji woote nañu ab dialogue ca diwaanu Parcelles Assainies yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy tënk kàddu yëpp nee na kenn ku nekk akub dialogue yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu fekk fa Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru daat nay wax ne du dem bi ndax jotagul li nga xam ne mooy terme de référence bis bu demee nag ba jot terme de mu xam ne lu sérieux la lu wala jalage dana dem sa dialogue ba waaye nag tànk jëlul ci li nga xam ne mooy terme de référence yi du dem sa dialogue ba yéen kay gi di Sud Quotidien nee na en tout cas li am ba bi tey ji la waaye opposition bu radical bi ñoom du ñu ko fekkee journal bi nee li nga xam ne moo jàmp loolee ci dialogue bi te ñu war ko waxtaane mooy lu jëm ci wàllu modification code électoral article L29 ak L30 journal bi di enquête nee na dialogue sous tension la ko journal bi tuddee ndax défi la mooy mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa Ababacar Sall nan la ñu koy lijjantee yéenekaay gii di Vox Populi xëy fekk fa waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax yi nga xam ne jamono ji moo am ci ñoom waa Benno nee nañu danañu amal rassemblement ñetti fan ci weeru juin ci place de l'Obélisque yéenekaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa plateforme F24 ñoom nag nee nañu mbooleem li nga xam ne ay violence la ci réew bu ñu ñu tamit Bougane Gueye mi nga xam ne moo doon def tournée ñu jël fitna teg ko ci kawam loolee waa F24 nee ñoo koy ñaawlu ak Aliou Sané mi nga xam ne ci ñoom la bokk ñu daal koy garda wi ak anam bi nga xam ne moom la ñu ko jàppee ñoom F24 nee daal jafe-jafe yi am ci réew mi ak bi lépp Macky Sall la ndax ñoom gis nañu ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat la Macky Sall bëgg yéen a kaay gi de la témoin yi nga xam ne ñoo boobee ñu daal di koy tijji yéen kay gi di libération ñu xëy fekk fa maître Khoureyssi Ba nee na Ousmane Sonko ci régime cellulaire la nekk moom maître Khoureyssi Ba daan nay wax ne Ousmane Sonko mënut a recevoir kenn Ousmane Sonko mënut a génn yéen kay gi nee na avocat yi Ousmane Sonko yi démb dañu doon seedi seen client bi waaye bay wuñu leen ñu dugg teg si tamit dañu leen a gazé yéen kay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naa ñu Sénégal fa mu jëm jamono ji baaxu li lii raam tañak ba la jëm te bu amee kër du baax ndax li ñu gis ci réew mi moo doy war nervi contre ay gros bras yoo xam ne dañu leen di fay ngir ñuy def ay ñaawteef yéen i kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na blocus bi nga xam ne moom la ñu def Ousmane Sonko maanaam amul fenn foo xam ne wax nañ ne fa la ñu ko teg te nag ñi nga xam ne ñooy police ak gendarmerie ñoom amuñu sañ-sañ tere Ousmane Sonko muy dem ak dikk moom Alioune Tine ñaawlu na bu baax a baax ñi nga xam ne jógoon nañ doon taal ay kër ak di taal ay oto yéen i kaay gii di L'As Antoine Diome ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi ma ngi dànkaafoo sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora tey woote fitna yéen i kaay gii di ko di nee na ay ndaw yu nag ñoo ngi wut si Ndakaaru ginnaaw appel bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ngir daal di résister yéen gi nee na Barthélémy bu Ndakaaru ma ngi dànkaafu nee xam ne moo war a taal këram kookee juddoogul Barthélémy Dias nee na ku taal këram da way mbay am na ñeent ñoo xam ne jàpp nañu ko kër Barthélémy Dias wax ne ñoom lañ doon taal Barthélémy Dias nee ñaar ñi dégguñu wolof yéen kaay gi di Vox Populi Pastef maire mu sàkkari kër ñoom na en tout cas le ci ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na en muy tuulee ci kaaw la ndax bu weesoo Ousmane Sonko mi xam ne ma ngi ci ab séquestration kër yi nga xam ne ñoo ngi di taal di taal ay oto di yàq ay infrastructure jàpp gi mel ni tulleeg màlle lii lépp dafa firndeel ne Sénégal yoon wi mu aw baaxul yéen kaay gi de Les Échos nee na APS bu Rufisque dañu ko vandaliser daal di koy taal ko daal di saax-saaxe dañu leen a attaqué ay cocktail molotov la ñu fa daal di sànni journal bi nee na njabootu Ousmane Sonko ay mbokkam wax nañu nee nañu nag ñoom àndoon nañu ak dal seen sang-froid waaye nag nee nañu turé si trois kay gi di source a xëy duñu xibaar naan ñu am na lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne teg nañu leen loxo ñeent ñi nag jàpp nañu ne ñoo demoon doon taal Kër Matar ba yéen kay gi di Les Échos nee na ambassade bu États-Unis ci Sénégal ak bu France ci Sénégal ak bu Angleterre ci Sénégal ñoom nag ñoo ngi dànkaafu ñoo ngi alerté ñi nga ne ñooy seen ressortissant yi nekk ci Sénégal ngir nag ñu daal di moytu saytu tey jii ci àllarba ji ak suba benn fan ci weeru juin ambassade bu États-Unis bu France ak bu ñoom nag nee nañu am na ay bërëb yoo xam ne seeni ressortissant na ngeen ko moytoo na ngeen jënd lu ngeen lekk dugal ci seeni kër na ngeen jënd tamit carburant ndax wóorul la yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy di ñuy xibaar naan ñu Ousmane Sonko mi nga xamante ni teg nañu ko loxo fan yi nga xam ne moom la ñu génn daal di nangu ay téléphone am journal bi nee na am na nag ay mbir xam ne gis nañu ko ci téléphone Ousmane Sonko yi moo xam moo xam Telegram la ñi nga xam ne tamit ñooy jàppale Ousmane Sonko ci biir réew mi ak bitim réew téléphone yi daal na koy wane journal bi nee na am na si ñoo xam ne jege nañu Macky Sall lool ñoo xam ne ñoo ngi doon déggante Ousmane Sonko di jëflante ak moom am na ci ñoo xam ne ay ministre lañu am na si ñoo xam ne ay membre gouvernement bi lañu ñenn ñi ñu jege lool nguur gi la am na si tamit ñoo xam ne ay membre de médias la maanaam ñoo xam ne dañoo nekk ci ëttu taskatu xabaar yi journal bi nee na lu jëm ci wàllum Wave ak Orange Money bu Ousmane Sonko gis nañu si ay transfert yoo xam ne jëm na ci média yéen i kaay la sa na mbër mii di Ada Fass tëj nañ ko lu toll si ñaari ati kaso benn at lay tëdd